gars yi salaamaaleykum gars yi ñu doon xaar Adamo Boss de Negri ci information élection yi pour l'instant président de la république li mu décidé mooy rapporter élection yi maanaam vingt cinq février bi amatul li ko waral nag mooy conseil constitutionnel danoo accepté benn candidature benn gel boo xam ne double nationalité la am ba pare daal di bokk maanaam da leen a corrompre ñu bàyyi ko mu bokk gel boobu gel bi double nationalité la am léegi Karim Wade ñëw am double nationalité moom ñu ne ko mënoo bokk léegi lan moo tax ñu mën a bàyyi gel boobu mu bokk Karim Wade ñu ne ko yow mënoo bokk léegi loolu la président di saytu nag pour ñu saytu loolu nag ensemble la ñu koy votel dañuy woo ñi nga xam ne ñoom ñoo nangu candidature gel boobu noonu ñu votel leen euh, euh, si ensemble xool nan lañ leen tegee ci yoon loolu moo waral président daal di pousse élection yi vingt cinq février yi ba saytu loolu ba pare mais ci loolu nag président dina ñëwaat ak ci yeneen dialogue dina woote waat yeneen dialogue toog ak askan bi wax leen ñu organiser waat yeneen présidence yu